bool léegi marqué bi dootul taxaw day wéy rek bokkul ak règlement bu njëkk ba léegi nag équipe bu def foot rek ka muy jàmmaat lool mooy marqué poñ équipe bi nga xam ne nag mooy njëkk am ñaar fukk ak juróomi poñ waaye ci diggante bi mu am ñaari poñ yi nga xam ne dox na diggante ñaari équipe yi day gañe match bi loolu bu amul nag. bu amul ñaari poñ bu bu nekkee lu gën a tuuti ñaari poñ match bi day continuer ba mu am ñaari poñ yooyu xam mooy séparé. ça peut aller a pas cette différence de au minimum. règlement volleyball kon changé na bu njëkk ba équipe bi nga xam ni moom moo yor service bi maanaam daal jël bal bi jox ko keneen ki moom rek moom mënoon marqué poñ su beneen équipe bi defee faute léegi nag faute bu ko def rek ak fa mu mënti jóge ci équipe yi keneen ki day marqué poñ. ñu ngi doon joué volleyball bu njëkk ba yi am na ñaar fukki at wala euh, fukki at. bu ñu ñëwatee fi mu nekk nii du ñu mën a comprendre volleyball bi ni ñu koy parce que dafa nekk dafa bëri changement. dafa bari changement ci arbitrage bari bëri changement ci terrain bi bëri changement même ci hauteur fii y' a ba changement yi beneen monde du volleyball moo am fi mu nekk nii. da ba tax na bu njëkk bu nga marqué poñ da yaa waroon a am dangay am service bi mooy joxe bal bi pour mën a marqué poñ mais ki daan euh, euh, jël bal bi. daawul mën a marqué poñ li mu mënoon rek changement la mënoon am mais léegi léegi changé na léegi ku def faute rek jox poñ sa sa sa adversaire. volleyball équipe bu gagné ñetti set maanaam ñetti pàcc gagné na match bi fekkee nag dañu tolloo ku nekk am ñaari set am na benn juróomeelu set muy set bu mujj bi loolu dañ koy def rek pour xam ku gagné ñaari équipe yi ñu koy wooyee tie break waaye nag bii pas li nga xam ne moo di match bi di joxe ci. waaye nag bii pa match bi du jeexee ci ñaar fukk ak juróomi poñ waaye ci fukk ak juróomi poñ lay jeexee ak ba léegi ñaari poñ yi xam ni dafa war a am diggante ñaari équipe yi pour ndam bi nekk lu ñu dëggal lu xaw jaaxal ñu bare ci équipe bu volleyball yi dafay am toujours joueur bi nga xam ni du bokk ak mayo ña nga xam ni ñoom la bokkal. loolu moom la ñu tuddee libéraux libéraux moo koo xam ne moom day dugg ci terrain bi euh, euh, waa liggéeyam mooy défendre rek. def nekk ci ginnaaw lay nekk di bal bu ñëw mu jëm koo xeex mu yéeg ci kaw wala bal bu ñëw mu jëm koo euh, fexe ba du daan ci suuf daal mais moom amul droit ñëw amul droit dóor bal ci kaw attaqué ko amul droit passe ñu attaqué moom daal rôle am mooy défendre bu bu pare day génnaat bu bu ki muy remplacer bu ko neexee nag mën naa dugg remplacer kenn mais ci ginnaaw lay nekk mais amul droit remplacer kenn ku nekk ci kanam.